ci laaj bi ñu bëggoon a jeexale muy laaj bu méngoog jamono euh, gis nañ ni réseaux sociaux yi maanaam internet beeg yàqute gi mu def ci ndaw ñi ban soññee ngay yëkkati jëmale ci fànn googu. waaw ah, xam naa ñu moytu bu baax rek ndax réseaux sociaux yi tamit dina defar waaye li muy yàq moo ëpp lu muy defar ndax lépp lu nëbbu woon rek feeñal nañ ko sutura si yàlla muuroon doomu aadama yëpp wuññi nañ ko te yàlla bëgg loolu ndax doomu aadama dafa yàlla dafa suturaal doomu aadama fonk ko doomu aadama am na ñuy wuññi di ko wane yoo xam ne loolu suñu borom gërëma ko mi ngi dem ba ci njaaloo sax kenn sañu koo te ñeent nit ñu bokkuwut fuñ jóge bokkuñu ñu xëyee teguñu seen bët ñu door ko wax kon nañ moytandiku wax ju bon ji ak tuumaal doomu aadama ak yàqub der te xam ne yàlla noppi na te fekk jal bu yàlla jal nga ne ko dinaa ko maasale pën day xara bari rek wala yàlla def la ca pax ma maasale la kon nañ yéenante jàmm te rafet jikko te bëggante soppante wóoloote xanaa di leen sant bu baax rek Sanel TV sant bu baax ndax moom it amal nañ ko njukkal ndax seetlu nañ ne fépp foo xam ne ñu ngi fay nekk ci liggéey Sëriñ Tuubaa ñëw na tàllal sa micro ñu wax ak ñu wax ca ngi yéen def ko ngir jàpp ci liggéey Sëriñ Tuubaa dem na ba ci temps corona bi ñuy def séddale sëriñ daara tam ni ngeen ko ànde woon ak ñun kon nag loolu ñu def lu di leen sant defu leen jubluwu leen ci dara lu liggéeyal Sëriñ Tuubaa te ñoo leen di ñaanal fépp fu télé yu mag yi egg ci àdduna bi rek yéen Sanel TV ngeen ngeen egg fa